jaa jëf jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bi simila ci xibaar bar gi li ci gën a fës te ñu am yéene forom fàcce ko ay grenade lacrymogène moom la alkaati yi tooj suba tey jëlee euh, militant ak responsable socialiste yi defoon déplacement ngir doole si Khalifa Sall gannaaw ba ko doyen des juges Samba Sall wooloo ko war koy déglu ci caisse d'avance bi ñu koy toppee euh, ci biir xibaar yi dañ ci dellu siwaat euh, ba tey ci wàllu xibaar benn robinet xel wul ci suba tey jëlee ca sum di benn gox boo xam ne ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Foundiougne ñii di waa moom la leen ameel mu toll ci fukki million ak juróom-ñett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 Euh, militant euh, socialiste ak responsable yi nga xam ne nii euh, ñoom ñoo defoon déplacement ci suba tey jëlee ngir dooleel si Khalifa Sall gannaaw ba doyen des juges Samba Sall wolo war koy déglu jëmale ko ci caisse d'avance bi nga xam ne ni moom la ñu koy toppee jàkkaarnoog la lay doon sax muy dox ci diggante mag mbay Touré ak yeneen agent yi nga xam ne ni ñoom la ñu teg loxo ci mbir mii ci jamono joojule Bamba faal mi meeru Medina mi ngi xaar dogal boobee nga xam ne nii moo war a tukkee ci way attekat bi gannaaw ba ay wokkam bindi ab xal di sàkku ci moom Euh, mu may ko ak bàyyi négandiku euh, mu doon nag daanaka ñett wala ñeenteel bi boo xam ne ni euh, ñu ngi koy sàkku ki kon ci kii di Bamba Fall mbir yi mu juta antu moom Bamba Fall nag lañu koy toppee bokk na ci yàq-yàqu kon yi amoon ca maison du parti ci weeru mars ci atum 2016 Euh, ñu wéy ba tey ci xibaar yi élection député yi di ñëw militant ak responsable PDS nekkee fële ci diwaanu Tëngéej ñu ngi koy waajal bu baax a baax ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal forondo Oumar Sarr yi euh, yéy nañ yàbbi jëmale ci mbiru xalifa Sall mi ne euh, duñu ci wax lu bari ndax keroog ba ñu jàppee Karim Wade mësuñu koy dégg benn yoon mu wax si moom xalifa Sall dañuy dem ci Tëngéej fekk fa Nazir Sadio. waa PDS dañ daje fii si Kounoune bu mën a taxawal benn secteur tànn nañu benn coordonnateur waaye nag ñoom dañuy profité si daje boobu pour mën a waxtaan seen biir mën wax tamit que mën nañ juboo tey nekk benn ngir parti bi gën a am doole fii si Rufisque Amet Ndiir. ñu ngi jéem a góorlu di ubbi suñu parti di woo Sénégalais yëpp ñu ñu jéem a fexe ba nekk ñu jëlee leen fii. ndax baaxunu pour dëkk bi ay la yéwén. daje bi nekk nekk na bërëb nga xam ne tamit waa PDS dañu waxtaan si affaire xalifa Sall ñoom ne nañu ñoom même su fekkee ñoom d' accord ñu ñu jàppee Khalifa Sall waaye ñu ngi wax waa PS yi ñoom jàppale ñu loon bu ñu jàppoon Karim Wade. ñaawlu nañu jàpp Khalifa bi waaye wax si wax ju bari defe naa man duma ko man lool ndax itam dama seetluwul woon xalifa mu barey wax lool si bi ñu jàppee Karim te defe Karim leen fi tëj ñetti at onkul saxatul jooyul wokkatuwul jàmbatul. waa PDS nag ñu ngi continuer di taxawal ay secteur si département bi yëpp fii si Rufisque nañu sax ñaari tribunal Walfadjri jaajëf Nazib Sagna ñu ngi lay sant di gërëm benn nag robinet xelliwul fële ca suum di benn gox boo xam ne nii ma nga nekkee fële ci diwaanu Foundiougne ñii di waa SDE ñoo ne tappi ndox ma ah, gannaaw koppar ñi ne moom leen waa SDE amee moom la leen kon waa dëkk ba ameel ñu xayma ko mu toll ci fukki million ak juróom-ñett ci suñuy koppar yóbbee askan wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yi xonk cur boole ko gàddu seeni pancarte di ñaw lu ni mel ñoom nee nañu duñu fay xaalis bu ñu gisul ab daata kon ñoo sàkku ci kilifa ñu raccordé leen euh, ci réseau bi jóge Notto Diobass jàpp gox bii di Bawut ñu dem ca Foundiougne fekk fa Alassane Ba lopp fukki junni ak juróom doomu aadama yu dund ca commune bu sum bokk ca département bu funjuñ la SDE tee naan ndoxab robinet ndax di leen laaj facture bu ëpp fukki million ak juróom-ñett ci suñuy koppar. population bi mënul fay facture yoo xam ne gisu ko parce que mësul jot facture. donc problème am it la bañul du population boo xam ne dafa bañ a fay facture mais defa mosul ak jot facture pour mu fay ñu yeewu un beau jour rek ñëw dagg ndox ma ne feek fayul dix huit millions de francs duñ ko rétablir ndox mi parce que buñ ko joxoon facture courant moo gën a cher set danañ koy fay donc boo ko joxoon ndox mu fay ko mais dañ ko joxul nga yeewu un jour waajoo ko waajaloo ko rek ne ko kaay nga fay dix huit millions wala ñu dagg la nga daggu ko. askan wi nga xamante ne lii di feebar ak mar ubbi ay bunt ju wutali ci ñoom ñu ngi sàkku ci ñu jiite seen dëkk ba ak nguur gi ñu raccordé leen ci réseau ndox bu bawut bi nga xamante ni soriwu leen dara. ngeen place bi ñu taxaw kàmb yi setul teen yi baaxuñu loolu la ñu lu ñuy naanee lu ñuy fóotee lu ñuy raxasee lu ñu defee lépp fii lañ ko yaakaari te xam ngeen ne lii setut kenn waru ko naan elo yi ci dëkk bi. mën mënuñoo jàng ndax ndox bu ñu xëyee ñu nga ca teen ya bu guddee ñu nga ca teen ya. au vingt et unième vingt et unième siècle vraiment nga xam ne loo est nécessité ñu doon ñaan autorité yu ñu jàppale situation bii nga xam ne daal moom la ñuy dund. maintenant réseau bi jógee Notto Diobass ñëw na ba Bawut Bawut fii nii rek la ci ginnaaw à quelques quatre kilomètres de Soum loolu situation boobu nag la ñuy ñaan autorité yi. ñu jàppale ñu ci raccordé ñu ci côté boobu ci réseau boobu. nit ñi amatuñu beneen jot lu dul ndox rek. dem ndox sax dem teen ya sax taxul nga am ndox. ñoom askanu sum ab doxub ñaxtu la ñu fësalee liñ doon def waaye noppeeku ñu ut yeneen pexe ngir delloo si xelub SDE wala ut beneen saafara ci nguuru Sénégal nee nañ kilifay réew mi waruñ seetaan benn yoon société bi yore ndox ci Sénégal di marlo fukki junniy nit ak juróom sum Alhassane Ba Demba Thioub yi juróomi at gannaaw ba ñu ko tegee ci boppi réew mi ñii di safar si ñi ngi amal ab natt jëmale ko ci liggéeyu njiitu réew mi Macky Sall rawatina ci wàllu transport donte le am na ñu jàpp ne ay jéego am na si waaye am na lenn ci safar si ñoom dañoo gis ne transport bi gisuñu ci seen bopp euh, bus tata yi jël di ko jox transporteurs yi joxal leen ko ñoom safar si moo gënoon fuufa Fatoumata Seye El Hadji Saliou Bey reportage. 2012 ba 2017 ci taxawaayu Macky Sall askan wi nag saa yu xëyee seen ëpp dem dikk di leen jaaxal yenn saa yi ñu am ko yenn saa yi mu doon it lu jafe juróomi at nag ginnaaw lu ni mel ñi yëngu ci wàllum dem bekk dikk bi mbir mi jaaxal leen ba léegi. cinq ans yi Macky Sall amul dara lu dox au niveau du transport interurbain ak interurbain dara doxul en ce qui concerne les tata amul benn amélioration ñi ko jël di dëkk à partir de comment dire de. boo jëlee ay oto di ko may nit c' est l' argent des contribuables avec l' argent des contribuables dañu war a defar route yi infrastructure yi au niveau de la santé au niveau de l' éducation pour yëf yu mën a aller de l' avant. ñenn ñi ñoom di wane seen naqar waaye it yaakaar gu tas gi nga xamante ni moom la ñuy nekkee te kenn waralu ko ku dul nguurug Macky Sall. metti na bi peeru metti goo xam ne nii. foo ko natt weesu na ko parce que ñun quatre heures du matin la ñuy yeewu nekk ci tali bi gis nga heure bii ma jëmaat Tëngéej nii bala maa àgg Tëngéej vingt et une heures jot vingt deux heures may war a retourner bala may dugg sama kër bay sangu ba pare min wi jot salaire yi daal chauffeur yi bu ñu leen yokkalam salaire yi dina baax trop oto yi tey jii bu ko naree indi bu dee gouvernement moo naree indi oto di ko jox maanaam ñañu àndal ñun mënuñu mënuñu ci am bu doon tey jii nii maanaam jox nañ ñu ko ñi nga xam ne ñun ñii ñoo ko yellool kon maanaam dañ moom bu boobaa Macky Sall ca kaw ca kanam. ñeneen ñi ñoom am ci xel mu dal ndax gis nañu ne la leen nguur gi digoon yépp euh, bëri na ci loo xamante ni matal na ko donte sax des na ay ponk yoo xamante ni faaw nguur gi nag matal ko ngir seen liggéey gën a mën a mucc ayib. man pour man am na amélioration parce que fekkee nañ avant ak euh, li ñuy dund actuellement donc pour man am na amélioration parce que yokku na fi euh, wàññeeku na fi du moins. ñaari yoon peut-être mën na améliorer plus mais quand même loolu ñun ñi jënd à la pompe gis nañu ko. ci diir yi yëpp bari na ay jafe-jafe yoo xamante ni am na ci mbirum dem bekk dikk bi yëngu lool weerante guddeeg bëccëg ñenn ci liggéeykat yi nag ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu gën a xoolaat eh, taxawaayu eh, ñi nga xam ne ni ñun ñoo yëngu ci wàllum dem bekk dikk bi bëgg nañu it ñu taxawal benn politique boo xamante ni dina mën a gën a jëmale kanam lii di seen liggéey. jaajëf soxna Fatoumata Seye ñu ngi lay sant di la gërëm ba tey ci fànn wule juróomi at si gannaaw ba ñu ko tegee ci bopp réew mi ñii di askan ñu ngi sàkku si njiitu réew Macky euh, mu soppi aw doxalin bàyyi yoon yu muy jëfandikoo di fagal adversaire am ci wàllu politique euh, defu ko ñaari at moom yàggatul te daas nañu seen i pàkk ba mu ñëw di denc te xam ne ren di moom euh, du leen bett mukk ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro soxna Ramatoulaye Diouf. mu jëm fexe ba xam li a am muy yoon mu bàyyi ko mu te yoon di dogal di joxal yoonam sans pour autant moom si dugal loxoom wala ay ministres que dinañ leen dak buur aayul wala dak yaa sa politique sociale vraiment waaw moo xaw a moo des quoi. wax ñun dafa naq léegi nit ki bu amee boo ko boo ko ne mille francs sax dafay ragal génne benn mille francs jox la parce que naan déedéet dëgg da ngay amul xaalis quoi lu ko waral c' est la politique rigueur bi mu indi maanaam. dëgëral bu mu dëgëral war koon ko cinq ans daal man deux ans yu jëkkee kontaanoon naa mais pour l'instant nii d' accord moom waaw parce que boo nee da ngay jàpp da ngay da ngay jël ay leader politique di leen di leen tuumaal ci xaalis bien vrai am na bu fekkee ne dafa am ah nañu tëjee ndey dafay tëddee président day tëddee ndey ji seex waaw ñi nekk ci parti am bu fekkee nañu lekk nañ leen téye lim bi moom au départ baaxoon na mais pour l'instant nii moom ñu ngi rétrogradé ñu ngi delluwaat ginnaaw waaw deux ans yu jëkk yi baaxoon na mais trois mais yii moom temps yi moom doxul te nag bu changé wul ah erreur dina am moom yuuxu dina jëp fuñ ko yaakaarul woon xëy na deux ans yi ko fi dese bu fekkee ni lim ñi nga xam ne moom la sumb nii eggaleew ko wala liggéey bi gis nañu nii jaarul yoon li mu war a def defu ko ñoo ngi suñu carte électeur boobaa ñu xool ki ñu doy rek ñu daal di falaat keneen nguur daal yàlla moo ko yore ku fi yàlla teg nga fal ku fi yàlla jeexal nga jeexal Macky yàllaa ko fi teg nañ ko may tuuti mu liggéey bu fekkee ne nag liggéeyul ñu jël sunuy carte ñu wàcce ko ñoo ko fi tegoon. mu wax lu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci askan ni ñu doon jeexee seen xalaat jëmale ko ci juróomi at yi nga xam ne ni njiitu réew Macky Sall jot na koy def kon eh, ci eh, boppi réew mi ñu wax ci wàllu tàggat yaram gannaaw ba ñu lajjee ci tournoi zone 2. Euh, bi ñu doon amal fële ci Mali ci xaaj bu njëkk bi ñu jàpp ne kon suñu gaynde yi euh, ñu ngi waajal kon match retour yi ëllëg ci aljuma ji lañu koy door fii ci Ndakaaru euh, ñii di staff bi nag mujjee nañuy siiwal turu fukki jour ak ñaar yi nga xam ne nii ñoom lañu tànn ngir ñu mën a qualifier Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu war amal fële ci Congo kon fukki jour ak ñaar yi ñii la ñu xaan dal may daal Lamine Samb Louis Adams El Hadji Malick Ndiaye Djibril Thiam Antoine Mendy El Hadji Malay Ndoy Mamadou Lamine Diop Abdoulaye Koulibaly Abdoul Ba Pape Abdou Badji ak ki nga xam ne ni moom moo di Moïse Diame bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne ni moom moo di directeur technique national Maguette Diop moom jàpp na ne staff bi tànneef gi ci def daal tànneef gu baax la euh, Maguette Diop wala Maguette Diop kon ñu teewlu ko ci micro si Ahmed Tidiane Gomis. bu ñu ni ñu ko joué woon ni ñu defoon loolu ñu ne ah ñu xool renfort yi ñu am naka lañ ci mën a génn. bu ñu avancé bu ñu xoolee match bi ko joué nag ñu xool ni peut-être li taxoon ñu ñàkk ko xam nañ ko moo tax ci tànn bi tamit dañuy xool joueurs yi ñëw nga xam renfort lañu ñoom ñi mën a li ñu mën a bind indi pour que match bëli di ñëw ñu mën ko gaj loolu moo ñu tànn na ñii yoo xam ni bu ko a génn ak ci jàmm ak salaam fi a baax tax ñoo ngi def suñu sentulay kàttan pour gagné boobu match te am nañu argument xam nga na ko gagné donc waaye match nag am argument gagné ko rek taxul taxul nga gagné na ko dañ ci def li ci war yëpp moo tax muy fédération bi muy encadrement technique bi muy joué ñëpp xam nañu match boobu nu nu ko nu solo bi ko jox ci kattanu yàlla liggéey noonu nag pour loolu yeneen li des yëpp nag ñoo koy def xam naa ne wane noonu daal loo xam daal bu gënoon gay match yi nga xam ni moo nekk sunu kanam yëpp mu wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Maguette Diop mooy directeur national bu basket fii ci Sénégal ñu wax ci jamono tey xaritoo gi nga xam ne nii war naa am ci ngoonu tey jile muy dox ci diggante Sénégal ak Nigéria mu doon match boo xam ne ñu ngi koy joué fële ca Londres ci Angleterre mu doon nag match boo xam ne nii dana metti lool ci euh, xale yi Aliou Cissé yi ndax boo xoolee sunu sóor yi ñu bëri si ñoom daanaka matuñu ndax ku ci mel ni Diawa Balde Balde Keita newu fa Babacar Xum Khadim Ndiaye euh, ñoom ñëpp daal dañ am ay problème ci wàllu kayit moo tax kon mujj ñoo teewee kon ci match boobule euh, Pape Alioune Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñoom duñu mujjee bokk ndax dañoo gaañ am ay gaañu gaañu mu doon loo xam ne ni kon ñu kon ko nangoo ci directeur technique national di Mayacine Mar kon nañ jàpp ne match boobule ci ngoonuk tey jile lay am muy dox ci diggante Sénégal ak équipe bi eh, di Nigéria lépp nag jëm ci waajtaayu coupe du monde ak coupe d'Afrique yi nga xam ni war nañ koy amal ci atum 2019